del déglu del xool Feeling Dakar site bi jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar. ñu ngi ak uh, ki nga xamante ne mooy maître Clédor Clédor li salaamaaleykum maître ñu ngi lay. fi andi mooy Cheikh Niass gis nañu boobu léegi affaire dafa nekkoon ci yoon tey lan nga mën a wax yow en tant que avocat. waaw li mu mën a wax ren moom moo di que dañ doon saytu pour leeral lan moo tax mu génn àddina ci kaw loolu def nañ jël nañu disposition yëpp pour que ña ko war a mën a fekkee yëpp fekkee ko ba ci famille bi docteur bu ko représenté bon depuis démb nag ñu ngi ci woon. mu doon li nga xam ne du woon liggéey bu yomb ba ñoom ba ñu mànkoo la ko la ñu gis ci seen àqulaa taala ak euh, ci seen xam-xam fa mu toll ak fu ko yàlla yóbbu day nga nee nañ daal que li ko tax mu génn àddina ci ñoom li ñu mën a wax moom moo di que dafa amoon Covid boo xam ne dafa lalu woon ba yàq lu bari ci poumon yi loolu nag li tax euh, loolu yegg foofu it euh, dafa tax jabet dafa amoon jabet euh, jabet bi loolu moo taxoon yëf yi gën a kii quoi gën a gën a gën a garaaw dégg nga ba finalement ñoom loolu moo ko yóbbu saytu nañu yit ba loolu weesoo yaram bi yëpp xool ko wante ci seen diggante ak seen borom dégg nga gisuñu ci lépp dara loo xam ne war na mën a wax ne Euh, dañ ko teg safaan dégg nga ba walla dañ koo gaañ ba loolu yóbbu bakkanam donc gisuñu ci benn trace bon léegi nag euh, famille bi de toute façon man depuis euh, ñu ngi ci dégg nga bon ànd nañu dal ànd nañu xel te loolu yombul bu doon ñeneen la kon xëy na fii sax duñ fi yegg ndax pour agsi même ci loolu pour xam dëgg bi lu jafe la woon ndax coow li bari woon na ba finalement ñëpp dañoo dañoo commencé woon ragal bon il fallait que vraiment lu dëgër pour que nit ñi delloo si seen xel euh, mun a nangu même euh, gunge nit ñi ci ci wër dëgg bi bon léegi nag kayit yi aussi euh, formalité yi bari na wante it yëpp réglé na corbillard baa ngi ni li ci des moom moo di ñu jébbal ko seen borom léegi nag ñoom après ñoom ñooy xool Euh, li nga xam ne moom la résultat science bi wax la mu génne ak ñoom it lañ ci xam ak léegi la ñuy def it loolu ñoom ñoo ko xam waaw man ci avocat en tant que qu'avocat mbir mi fallait que ñu ma gunge leen dégg nga ba mbir mi leer waaw du woon lu yomb te it pour ñu teel a jotaat ci yaram bi dégg nga pour mën ko jébbal seen borom xëy na aussi bu ci sama loxo nekkuloon dina war a mën a dem ba ajjuma bala di ñëw te loolu baaxul ci jullit jullit dañ koy teel a dénk boromam jaajëf. Euh, gis nañu ki nga xamante ni moom mooy avocat bu Cheikh Cheikh Niass muy maître Clédor moom information yi mu joxe ci li nga xamante ni moom moo fi fi fi jotoon a xew. diggante ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Cheikh Cheikh Niass dégg ngeen information yi kon léegi maître mi moom moom nga xamante ne mooy avocat bi ñu bi ñu bi ñu jëloon euh, confirmé na que ni Cheikh euh, feebar bi nga xamante ni moom mooy Covid Covid 19 moom moo ko moom moo ko faat. gis ngeen euh, avocat bi di maître Clédor Ly li li mu wax mooy que ni Cheikh ñas dafay confirmer ni que lii que li ñi doon def autopsie bi wax seen diggante ak yàlla mooy que ni li ñu gis ci moom mooy Cheikh dafa amee woon feebar bi nga xamante ni moom mooy Covid Covid Covid 19. loolu loolu moo ko moo ko moo ko faat ci ci solon moom information yi mu ñu jox kon ba tey rek Cheikh dañuy wéy di ko ñaanal yàlla. ah suñu borom yàlla yërëm ko jéggal ko taabal ko ci àjjana yi gën a gën a gën a gën a kawe métti na métti na trop. ndeysaan waxoon na comme ni ñu leen ko waxee woon rek dinañ leen toppal bépp information boo xamante ne rek euh, am na fi ci fii ci biir euh, Feeling Dakar TV nee naa la nañ leen koy toppal fépp fu information nekk rek dañuy dem jëlal leen ko fa ah.